malaktu bi rabbi ci ndigalulu cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke xalif général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci taxawaayu daayira muxaddamatul xidma daayira masaalikul jinaan bu Touba Toulouse ca France ci njiital Mame Benda Ndiaye lëkkaloo ak daayira Touba xepp ndox mu neex ci njiital Serigne Ousmane Mbàkke moom Serigne Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ak Serigne Moustapha moom Serigne Moussa Mbàkke ànd kook boroom xam-xam yi gën a kawee ci senegal ci wàllum ndox ñooy woo mbooleem jullit yi rawatina taalibe yi ci bu mag biñ fas yéenee liggéey ci armeelu Baqiya ci Touba Mbàkke lépp ngir saafara jafe yi nga xam ne moom lañ daan am am ci wàllum ndox ci barab bi ndax àggoon na ci buñ daan waajal waaye dawlu yi daan jëndi ay bidon ngi ndox loolee lañ fas yéenee saafara ginnaaw biñ ci amee ndigalu la Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides muy forage bu mag boo xamante ni day am doole ànd ak ndox mu neex te sell ba mën a alimenter mbooleem quartier bi nga xam ne moom moo nekkee ci Bakhiya ñu ma ko ci 60 millions de francs CFA liggéey bi nag ñu ciy woo mbooleem daayira yi nga xam ne dañuy liggéeyal Serigne Touba ak fépp fu ñu mën di nekk di ci woo daayira Touba ca kanam daayira Muxaddamatul Xidma lëm yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ci diaspora bi yépp ci njiital Serigne Assane Diop ba nekkee ci réewum États-Unis daayira Masaalikul Jinaan bu Touba Toulouse di woo ci liggéey bi ak soñño mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekkee ci Europe bàyyiwuñ benn réew daayira Touba xepp ndox mu neex di soññ ci liggéey bi ak woo képp koo xam ne bëgg naa ñëw jàpp ci di ci woo mbooleen ñi nga xam ne dañuy yëngoo ci wàllum ndox di ci woo ak soññ aussi commune bu Touba ci njiital Abdoul Hadka liggéey bàngoog di forage bu mag bi nga xam ne moom lañ fas yéene liggéey ci armée lu Baqiya ngir saafara mbooleen jafe-jafe yi nga xam ne moo fa amoon ci wàllum ndox liggéey baa ngoog ñu ci woo ñëpp bàyyiwuñ kenn képp koo xam ne am nga loo ci barkeeloo mën nga koo def ci numéro yi affiché am na Orange Money am na Wave muy 77 710 04 04 77 710 04 04 wala nga jokkoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu liggéey bi di ñaan képp ku taxaw ci liggéey bi yàlla faj say aajo ci barkeb Cheikhul Khadim liggéey baa ngoog ne ci ñëpp jàpp ñu liggéey ko ci ni mu gën gaawee ay waleen murid